jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com invité de la rédaction tey nag euh, sunu gan nekk Mouhamed Kane nekk coordonnateur euh, départemental bu euh, mouvement bi nga xam ne nag moom la ñuy wax jéngu muy parti wala parti ah jéngu bu Boubacar Camara moom la ñu fas yéene seekal waxtaan waxtaan bi ñu fa yéene koo yaatal Mouhamed maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo lay topp ci 24actu point com. waaw Cheikh bi maa waaw euh, di leen wax ne kontaan naa trop trop ci dalal bi ngeen ma dalal fii. Mhm. voilà euh, wax naa ko léegi Boubacar Camara bu jëngu nekkoon euh, ma ngir fàttali rek jiite woon na fi nga xam ne nag mu nekkoon na directeur général bu douane nekkoon na itam nekk avocat ci barreau bu Paris waaye itam nekk PCA bu Sococim Mohamed jéngu wax nañ ko parti bi bi ngeen nekk di jéngu yaa ngi jàppal tànk Boubacar Camara nañ ne élection yi nga xam ne moom la ñu génn jéngu ngeen waaye terewul. parrainage bi da leen a segg ndax mën ngaa dellusiwaat ci loolu. waa d'accord loolu moom boo ma laajee dinaa ci sawara tontu parfois sax dama naan duma ci wax mais tey dina leeral pour que askan wi ñu ci bari xam qu'est-ce qui s'est réellement passé. Hmm. tey je peux dire que tey nombre bi nga xam ne moom lañ doon laaj. ci parrainage ñun triple bi lañ amoon. triple bi ngeen amoon. triple bi lañ amoon. triple bi ça veut dire. maanaam su ma triple mooy que ñun amoon nañ lu tolloog six cent mille et quelques. non cinquante neuf mille. non attends passion cinquante neuf mille quatre cent quatre vingt treize. Oh, non taxaw ngeen d' euh, accord. comprendre nga cinquante neuf mille quatre cent quatre vingt trois mille trois cent cinquante sept moom lañ ci validé. xam nga ñi ñu rek. trente six mille cent trente six. waaw d' li ngay wax lépp bañu ñu ko. moo baaxul moom la ñu recalé. dama ne ñi ñu recalé yëpp lañ leen wax doublon. waaw. xam nga bi ñu rekalee ci doublon yi ba pare. Hmm. Euh, président dafa laaj. Hmm. ne leen nañ ko yónnee yan lan moo tax ñu téye mais ba léegi nii kenn mënu laa wax ne la lii ak lii ak lii ñoom dañ ne loolu ça ne se fait pas tey man pour man tey yow tey boo ma accusé woon pour dara. waaw di nga ma indil preuve non dañu ne dafa am ay doublon yu ci am. waaw ak ñoo xam ne inscrit wuñ ci hmm. liste électorale bi. <laughs> loolu mooy raison yi. non loolu moom du ay raison franchement. Hmm. loolu moom du ay raison parce que man je me dis que tey nit ki boo koy boo ko xanaa nit ki boo koy accuser sàcc. Hmm. boo koy accuser sàcc mais di ngeen di preuve yi tax nga koy accuser xam nga nit ki boo koy tuumaal di ngeen ne lii moo tax ma koy tuumaal au moins balaa sax ñuy jàll ci ay enquête ak lu ne. Hmm. xanaa tey ma du ma la fekk sa néeg nga tëdd rek ma ne da nga maa sàcc. ok ok en tout cas gis nañ ne naa bi segg na leen ginnaaw bi mu leen seggee lan moo tax ngeen defoon seen choix porté ko ci Ousmane Sonko. waaw parce que loolu moom. Hmm. dafa nekkoon benn débat boo xam président. posé ba ñëw mu waxtaan ci ak ñoom ci war a waxal yëpp. après hmm. ñu def ko vote vote lañ ko def. Hmm. majorité bi yëpp nee nañu leen ànd ak soo xoolee Sonko dafa ñëw pour changer ñun aussi loolu moo ñu taxoon a jóg. loolu moo tax ñu ànd ak que am na yeneen candidat yu fi nekkoon. waaw ah, parce que xam nga candidat bu ci nekk da ngaa teg sa programme. tey ñun bu ñu sukkandikoo ci suñu programme. suñ programme ak programme son Sonko dafa méngoo. ngeen jàpp na daal seen programme ak Sonko méngoo na quoi. merci beaucoup loolu moo tax ñu ànd ak Sonko. ok mais gis nañ am bi après ànd bi gis nañu ay jafe-jafe yi parce que élection yi xëy na euh, ni ngeen ko bëggee woon amul leen ko parce que gis nañu Ousmane Sonko ndax loolu du euh, seen seen seen parti bi di jëngu du tombé dans l'oubli. non Ousmane Sonko mujjul jàll ça veut dire quoi. ça veut dire ni mu bëggoon amu ko président la doon wut jotu nekkul président. <laughs> waaw mais xam nga xam nga tey élection boo ciy bokk. Hmm. képp ku ci bokk ne da ngay ñaan yàlla ne président. président <laughs> mais boo nekkul président aussi c'est pas la fin du monde du loolu moo yàq sa liggéey. ok mais moo nekkoon objectif bi nest moo nekkoon objectif mais tey aussi je me dis ni tey Sonko boo xoolee d'une part man dama naan objectif am. Hmm. atteindre na ko. ah bon waaw d'autre ce que duñu mën a wax ne pour loolu day dis duñu wax ne def na benn percée rek cest à am na euh, foo xam ne egg na fa parce que xëy na euh, ñu bëri doon nañ ko xaar foofu mais objectif bi atteindre na ko moom. loolu est-ce que ñëpp dinañ ci d'accord. parce que waaw moo tax ma ne la d'une part. Hmm. d'autre part nag échec la. su hmm. ma nee la d'une part atteindre na ko mooy que ni tey soo xoolee euh, percée bi mu def ni ñu bari xalaatuñ ko woon. tey d'autre part aussi ñu ci bari dañ doon wax naan Sonko. Hmm. dina sans système parce que aussi parfois man je me je me pose la question ma ne est-ce que sénégalais lan lañ bëgg. parce que tey da ngay ñëw gis sénégalais di kaas. di kaas naan régime bi doxul régime bi doxul régime bi doxul. Hmm. alors que ni bu élection jotee sénégalais yooyu noonu doon kaas naan régime bi doxul mais ñoom ñooy voté la régime bi. voilà euh, ñu bañ ñu bañ a xuus ci mbirum Sonko ñu ñëw ci Diengou ak Boubacar Camara wax naa ko léegi ma ne. Hmm. seen ànd bi ak moom ànd ngeen xëy na yàlla dogalu ko ndax du tombé dans l'oubli. nekkul ni da ngay nekk ci télé di xuloo di xeex di saaga fii di kii ñun dañoo dépassé loolu franchement parlant ñun dépassé nañ loolu. tey ñun li ma la wax mooy que ne ñun fi mu nekk nii dañu nekk di travailler ci ay programme programme de fonctionnement nan la ñu war a taxawalee suñu parti ba tey fépp ci Sénégal ñëpp di xam lan moo lan moo tax a jóg jéngu parce que xam nga li may wax rek li ñëpp bokk li ñëpp bokk da koy yóbbu ñëpp jot ci maam ñun ci loolu lañ nekk. te jéngu yëfi ñëpp la. yëfi ñëpp la waaw yëfi ñëpp la. après élection yi lan ngeen ci tiire yan leçon ngeen ci jëlee ci élection yi jàll na. mais comme comme lépp rek. Hmm. nit ki yaakaar naa lépp loo nekk lu ne. Hmm. boo ci paree am na benn jàngat boo ci def. yéen ban ngeen ci def. waa mais ñun am na benn expérience bu ñu ci tiiree ñu ngi liggéey ci loolu. yéen a ngi ciy liggéey waaw ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax. te te dina leer balaa yàgg de ah. incha allah ñu ci kawam. ok ay fan yu néew rek. ok xam naa dinañ ci mën na jombul balaa jotaay bi jeex dinañ ci dégg ñu ñëw ci actualité internationale bi. Hmm. gis nañ ne président supprimé na poste premier ministre bi yéen en tant que parti politique. ban jàngat ngeen ci am waaw xam nga man sama problème sax mooy que ni xam nga boo nekkul ci état. Hmm. soo waxee ci état <laughs> ñu ne da nga da nga contre état. Hmm. xam nga moo tax foo bokkul pour nga wax fa aussi day xaw a metti mais li ma la mën a xamal. daal mooy ci dëkk bi ngeen dëkk supprimer nañ en tant que xëy na. waaw nekk ci ku jéggi mënees na ko waxee. waaw non foofu laay waxee. Hmm. xam nga tey nit ki fi nga xam ne bokkoo fa. soo cay wax dañ naan lu bon rek lay wax. tey suppression première ministre bi tey yow sénégale nga. comme man ni ma nekkee sénégalais. tey yow am na jàngat boo ci def. léegi yow ban jàngat nga def mais sa jàngat lañ soxla tey. waaw yéen en tant que ku bokk ci euh, parti bi di jëngu. Mhm. surtout nga nekk euh, coordonnateur départemental fi mhm. waaw hmm. ah, xam nga xam nga xaw ma fatt taraj la xaw ma nuñ koy waxee noonu. fatt taraj bi waaw ah? ah, man fatt taraj laa koy wax. fat taraj waaw. parce que <laughs> si si si man loolu laa wax. parce que hmm. daf ne day gën a gaawal affaire yi. waaw loolu moo tax mu supprimer premier ministre bi. <laughs> du loolu la wax. mais man je dii dis que ni loolu ay wax daanu ci sareet la rek. Hmm. ah waaw. jàpp leen ne daal lu baax la ci réew mi. non premier ministre xëy na li tax mu def ko moom am na leneen xam nga tey dañu nekk ci dëkk boo xam ne tey. Hmm. président mooy lépp. Hmm. mooy def lépp moo nekk fépp. parce tey man pour man dañ ne tey jii nii boo nekkee ci dëkk. bu lépp tegoo ci yoon soxla soxlawul ngay wutaat doole. Macky Sall li mu def ni da koo gën a dooleel. dëkk bu nekk ci yoon soxlawoo doole pour liggéey rek. ku pour liggéey mais soxlawoo doole pour liggéey. parce que ñun ay sénégalais lañ lu baax rek lañ bëgg. kon da ngeen jàpp ne dafa am lu ci laxasu ci ginnaaw. si am na lu ci laxasu nag. mais hmm. loolu ñun xamuñu ko. Hmm. xamuñu ko xëy na nag ñoom après bu ñemee ba ci kanam ñu dinañ ko xam. ok euh, ñi ngi woote dialogue ñi naan dialogue politique dialogue national lan ngeen ci gën a yaakaar mu am ak est-ce que noppi ngeen en tant que parti ngir wuy si ci dialogue bi. man moom dialogue duma ci wax parce que man duma ma ci dem. pourquoi doo citoyen en tant que. dañ maa jox invitation. invitation ngeen di xaar bu fekkee dialogue national lu soxal réew mi. waaw déggoo ma ne xam nga li soxal réew mi. Hmm. ñu ngi ciy wax di ci dox. xam nga tey man li may wax mooy dialogue xam nga dialogue dafa am nu koy defee hmm. mais tey yow doo ñëw teg sa programme ne eh kaay leen ñu waxtaan ay woo ay nit pour ñu waxtaan ba pare nga ñëw ne leen suñu ñëwee lii la ñuy waxtaanee <laughs> mais loolu dialogue la. loolu du dialogue. da nga jàpp ne mënoo fisale sa programme ba pare ne bu ngeen ñëwee ci lii la ñuy waxtaan. ok da nga jàpp ne avant dialogue bi ñu waroon def yëpp pour que mu am dafa am dafa am manquement wala. manquement yu bari sax. comme quoi. parce que comme ni ko ñëpp waxee xam nga tey mënoo ñëw nga ne dialogue nga jël ku ci mel ni le ministre de l'intérieur. bi nga xam ne moom la ñëpp doon ŋàññ <laughs> muy jiite dialogue bi. Hmm. loolu manquement. bon mais euh, président nee ñu xëy na bu fekkee ne euh, wut nañ ay ñeneen yi nit gars yi am na ci ñu bëri ñoo xam ne noppi nañ ci ngir wuy ji ci dialogue boobu. yéen da ngeen ciy bokk wala. waaw xam nga dañ ne bu dee am nañ koo xam ne farul fenn xam nga politique ku farul fenn amul. ok. Hmm. politique hmm. farul fenn amul. ok moom kay da nekk fii wala nga nekk fii. Hmm. non allié amul amul amul ci politique. Ah. non aligné daal <laughs> jàpp ci ci sa gis-gis jàppoo ne am na quoi. non amul. Mhm. <laughs> non aligné. non amul. nit ku ci nekk am na foofu laqatu. voilà noo gisee député yi nga xam ne xëy na ñoo nekkee ci gox bi te nekk assemblée nationale est-ce que jàpp nga ne ñu ngi taxawaay bi war ci ñoom def nañu ko donte bari ko <laughs> man moom franchement parlant suñu député yi sax man damay am problème pour xam leen. ah bon. Ah, bien sûr que oui. Hmm. parce que nekk luñ fi mbàccee. nekkaluñ fi député yi nekk fii nii nekkaluñ fi Mbàkke non nekkaluñ ñu fi. kan ak kan moo fi nekkaluñ Mbàkke non dama lay dama lay poser benn question. waaw non ti fii fii man maay poser question yi donc yow da ngay leeral. waaw d' accord <laughs> mais man aussi war naa laa mën a poser aussi parce que débat la. waaw dama lay laaj ban xeex nga mës a gis. ban xeex nga mës a gis du yaa ngi wax stade bi sànq. voilà stade bi ñun def nañ ay marché yëpp. tey kan nga gis ci député yi koo xam ne bokk na ci. xëy na ñoom eh, eh, bon député yi fi nekk xëy na ñoom ci côté diine gi la ñu yëngu parce que mais biñ ne Touba ndox meeg yooyu am na ci ñu ci kaas. ah d' accord ah député yi pour diine gi la. pas diine ji dama ne la fi nekk laa wax yi ñaata député yi boo compté député yi fi nekk xaaj bi ci diine ji lañ nekk. xam nga euh, boo seetaanee suppression premier ministre. waaw biñ koy def. waaw tey man gis naa ci benn député boo xam ne fii Touba la nekk da cee taxaw taxawaay bu am solo. muy non du ma tudd tur. mais taxawaay bu am solo te doo tudd tur. jarul may tudd tur mais taxaw na taxawaay bu am solo. Mhm. kon da bëgg ma tudd tur bi boobu. ah lu baax kay jarul na bu. mooy Baara Dolli. Baara Dolli Mbacke. waaw suñ Baara Dolli. waaw taxaw na fu taxawaay bu am solo foofu noonu. tey ni mu taxawaay boobu noonu mu amoon. Mhm. bi ñuy supprimer premier ministre bi. Mhm. su amoon taxawaay boobu noonu ci Mbacke. non kon ñun li ñu bëgg am nañ ko. ok bien vrai que nag moom mënul dara. mais ni mu kaasee foofu ba ñëpp dégg ko. mais na kaasal noonu Mbacke ba ñëpp dégg lool. côté boobu dafa ànd <laughs> xëy na moom côté boobu da ngaa gis ne dox dox ci lim ci war a dox. non non li mu war a def defu ko ci côté boobu noonu. ok man nag je l' apprécie trop bien. Hmm. franchement je l' apprécie. Hmm. mais xeex bi mu war a xeexal Mbacke. Hmm. non defagu ko. pourquoi nga ciblé ko moom kese parce que député yi am na ñeneen ñu fi nekk. parce que mën naa ne moom moo ci gën a actif. député yi nekk. yi nekk fii yëpp fii yëpp Bara Dolly moo ci gën a. yëpp moo ci gën a actif. ah bon mais est-ce que loolu du manqué respect yeneen depuis yi ñu fi nekk tey liggéey. non man manqué wu ma respect kenn de. Hmm. déedéet manqué wu ma respect kenn. mais je dis je pense ak li ma gis rek laa mën a wax. voilà ñu wax ci Mbacke gis nañu ni xëy na ñu bëri duñu jàpp ne poste de responsabilité yi ci ñi yëngu ci politique xëy na des na lool. Hmm. ban gis-gis nga ci am. li nga fi joxe. ci ay kilifa cest diir boo génnee galo ba DG galo ba ak yeneen ak yeneen maanaam poste yu diis yi ñi nga xam ne ñoo nekk fii tey politique xëy na duñu ko am. ah mais euh, comme ni nga koy waxee xam nga tey état. Hmm. ni muy fonctionner mooy fu mu amul ay résultats. Hmm. du fa def. état moom noonu lay fonctionner. tey quoi qu'on puisse boo jëlee Touba ba Mbàkke xam nga ni parti au pouvoir du fi am daal. mais xam nga tey ñoom bu ñuy fal ay post de responsabilité. Hmm. c'est juste pour xool ñoo xam dinañ mën a aider population ba nga xam ne ñoo fa nekk. mais nag ñoom yàlla def na ku ci mel ni Gallo Ba mi fi. ñun sax moom lañ gis. Hmm. moo ko Abdou Mbacke daw ñoo fi nekk ñoo xam ne ñu ngi APR ñoo xam ne waa Mbacke xam nañ leen. ok ok justement loolu dañuy may sax ñu dugg Mbacke gis nañu ni euh, yaa ngi fa mais des fois dañuy gis ngay def ay sorties di di tàkkale ñenn ñi euh, lan mooy euh, jamono ji manquement yi nga xam ne am na ci Mbacke nga xam ne dëkk bi da ko waroon am te amu ko. Mbacke kay amul dara. bon. dara amu fa. Mbacke amul dara. déedéet Mbacke amul dara. ça veut dire que. ça veut dire amul dara. ñi fi nekk di liggéey en tant ak effort yi nga xam ne mairie bi mi koy def. yow yaa gis effortu mairie bi. non mairie bi am na ay effort yu muy def donte man du man maa koy dressé bilan wala nangam mais. Mhm. xëy na. waaw non mais ku yeewoo ci dëkk bi yow miy dëkk ci dëkk ba di fa yeewoo. lan mooy boo nee lépp doxut. Ah. moom day xoromu lool. non xam nga duñ ne lépp doxul. waaw ah. duñ mais li nga xam ne mooy jafe-jafe askan wi. Hmm. te ñun ñuy yeewu ci biir askan wi. Hmm. xam lan moo fa nekk xam fiy metti <laughs> mais dara doxul. lan mooy fan mooy metti fan fan c'est-à-dire lan mooy priorité yi Mbacke. jafe-jafe lan priorité Mbacke. waaw jafe yi nga xam ne ah, tey euh, ci problème électrification yi laay dugg. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. Euh, gis nga tey jii nii Mbacke wallaay manquement yi ci ne tey soo koy wax sax gis nga su ma koy wax. noo xam naa doo mën mais listeel ñu yenn yi rek pour que ñuy seetaan mën a xam ne lii ak lii bokk na ci manquement yi. d' accord tey dugal yenn koñ yi ci nekk ay paale nag yu mel noonu tey làmp yi amul dara dara dara dara. dafa tàkkul làmp yi dafa tàkkul dafa man gis naa ay association yoo xam ñoom ñooy dajale seen xaalis defar seen làmp koñ yi. ah bon. ay association laalo de. te loo xam ne mairie moo ko waroon def. moo ko war a jël en charge. mais xam nga kon foofu taxawaayu maire bi des na. léegi lu gën a ñaaw li xam nga problème mu assainissement. tey man su may posé problème bi gën a am Mbàkke loolu laay posé mooy assainissement. waaye nag <laughs> balaa ngay setal aussi da ngay setal fi nga dëkk ba pare. Hmm. mairie Mbàkke sax setul ba dëkk ba di set. mairie bu Mbàkke bii setul. <laughs> maire Mbàkke. Hmm. <laughs> dugg fa nga xo. loolu est-ce que du offense. non mairie Mbàkke. Hmm. boo duggee ci maire bi ci ginnaaw nga xool foofu. tey nit ki sa kër bu setul. Hmm. mais munoo setal. mbedd mi ñu ko yaakaar ci mbedd mi quand même. Ah. Hmm. en plus aussi euh, oto mbalit. Hmm. oto mbalit ba mu gëjee corne Mbàkke kenn xamul kañ la. oto mbalit laa wax de. ba mu gëjee kenn xamul kañ la. insalubrité bi kon kii na. moom laa lay xam nga tey kër yëpp ni ñuy def mooy dañuy abonné ci sareet yi. tey sareet yi ñoo ñëw jël mbalit yi. léegi sareet xam nga man tey ji personnellement su ma yoroon sama sareet jël mbalit teg ko ci mais du ma daw ay 10 kilomètres pour pour tuuri ko fenn mais damay dem ba gis terrain jàmbur buñ kii rek ma sotti ko fa dem sama yoon. mais loolu est-ce que ba tey <laughs> mbalit mi nekkul ci dëkk bi kon mbalit maa ngi ci dëkk bi ba léegi nii. ok yeneen point yow ak yeneen point mën a tënkaat. Euh, tey nga ñëw Mbàkke am na tali yoo xam ne. Hmm. tali yoo xam tali yi dafa suulu tey boo fa awoon tey doo xam ne lii tali la. loolu rôle kan la. mu mel ni loolu mairie bi da koo gisut xanaa. no man mairie bi gis na gis nga li ñuy wax nii yëpp mairie bee la ko gën a xam. fii amul benn point bu ñu fiy souligner boo xam ne mairie bi xamu ko. ngeen mbaa da ngeen a bëgg toogu mairie bi. dañoo bëgg. toogu mairie bi fi mu nekk da ngeen koo soxla. ba xam dañoo soxla mairie bi. waaw musuma laa wax ne damaa soxla mairie bi. non question la man tamit waxuma ne da nga ma ko wax dama ne la question la. <laughs> mënuma répondre ci loolu. Hmm, lu tax déedéet mënuma ci répondre. Hmm. ok euh, gis nañ ñu bëri daanaka boo ne Mbàkke rek jàmbat yi ñuy wax mooy Mbàkke amul stade stade moom xam naa ñor na leen trop. Mm, waaw mais dafa ñu war a ñor xam nga tey boo duggee ci sport. Mm. man mën naa la ci wax lu bari. Mm. parce man yàlla dimbali na ma. joué naa Ligue 1 professionnel fii Sénégal. nekk naa Linguère bu Saint-Louis nekk naa Ndargéej Ligue nekk naa Daara Ligue 2. kon xam naa man sport Mbàkke nu mel. xam nga FC Bawol bi sax génn kon man xam naa Mbàkke bu baax a baax a baax. kon daal stade moom bokk na ci li ngeen di sàkku ci kilifa yi buñ ko mënee ñu def. bien que oui stade kay mënul ñàkk. ok ok stade moom mënul ñàkk wax dëgg yàlla. parce que suñu stade bee wax dëgg yàlla moom. mën hmm. naa ne pour course fas la. ah bon. <laughs> stade bi course Fass. Ah, wax hippodrome moom la kay nii sax moom la ñàkk pexe kay gay tax. ñu ah, ngi fay de xanaa kon ñooy football ngay kii ña ngi fay football de. waaw mais ñi ngi fay football parce que tey xoolee stade bi am na benn loo xam ni xaw ma mus nga fa dem nawetaan xaw ma musoo faa dem. demal stade bi mu taw ba pare. Hmm. nga xool turbine bi nu muy mel. turbine bi day taa. Hmm. même ODCAV sax foofu noonu man dama dama leen indexé parce que turbine yi ni ñu ko war a nettoyé sax duñ ko nettoyé noonu. Hmm. man benn jour jàppante naa ci ak ñoom. Hmm. man ODCAV aj nañ ma fi. ok bu ma fi gérer fi aj nañ ma fi ci loolu. ok ok nga ñëwaat ba léegi <laughs> ci Mbacké donc lan nga jàpp ne moom mooy euh, saafara bi fi mu toll nii. saafara bi. Hmm. noo man moom. pour jafe-jafe yi ngeen di jàng Mbacké di jàng tey tey ku cinq ans. Hmm. cinq ans saafara woo dara man pour man mënatoo saafara dara saafara bi mooy bu élection yi ñëwee. ñu sanctionné bu baax. teg fi kan xam nga ci sanctionné la am nit boo fi nag da nga fi teg dara quand même boo nee Abdou Mbacke baaxul buñ ko fi dindee kon fi xëy na laaj naa la léegi ne la ndax yéen soxla ngeen ko nga ne doo ci mën a tontoogun léegi. waa non xam nga xam nga Mbacke. Mbacke am na ay jeunes am na ay jeunes yu dynamique yu bari. yoo xam ne da ngeen ci génn seen bopp yéen. <laughs> non génnewuñ suñ bopp. su ma hmm. nee ay jeunes. Hmm. mais man jeune laa te Mbacke laa dëkk. kon soxla nga mairie bi. ba xam man soxla naa mairie bi. non loolu mënu cee wax. vas-y waay loolu ma cee wax. Hmm. mais daal Mbacke am na ay jeunes yu dynamique. jeunes yoo xam ni pare nañ pour taxawu mbaake fu ne. pare nañ pour xeexal Mbacke fu ne. ok ok kon xëy na boo fekkee ne maire bi soxla woo tamit xanaa conseil départemental bi euh, soxla yitteel na ne wala. mais ku tontuwul maire doo tontu conseil départemental. sëñ Fallou Mbacke ma fa nekk nag. waaw na ko ne liggéeyam rek. mi ngi liggéey wala bi nan nga gisee bilan xëy na li muy def. positif wala. c'est que xam nga xam nga boo nee ma boo nee ma ba xam bilan dafa positif wala dafa négatif. no cest à am na yoo xam ne c'est-à-dire yaa ngi gis ci Mbàkke nga dëkk yaa ngi xool am en tant que kuy yëngu ci politique xëy na di nga war a mën a gis yenn am yenn réflexion yi wala nga gis yéen la ci tontu benn tontu bu ndaw xam nga tey quoi qu'on puisse dire tey hmm. euh, mairie commune bi la rek xam nga ñi ngi wax mairie mairie xam nga mairie commune bi la mais conseil départemental xam nga moo ëmb lépp hmm. xam moom moo ëpp lépp. léegi nag yow jëlal jafe-jafe Mbàkke yëpp ba Touba nga ñëw. loolu lépp conseil départemental bi la de. kon doxut sëñ Fallou Mbàkke danga bëgg wax que ni liggéeyul. ba xam sëñ Fallou mi ngi liggéey wala liggéeyul. waaw man sama point de vue. <laughs> man liggéeyul de man liggéeyul laa lay xaw ma nag yéen. Hmm. man ci man liggéeyul. Hmm. sëñ Fallou Mbàkke liggéeyul. xam man lan lan laa jàppee liggéey. Hmm. xam nga bilan day nekk matériel wala mu nekk lu immatériel. xam nga li nga xam ne immatériel la loolu ñun mënuñ koo gis xam nga li nga gisul mënoo cee wax mais bilan matériel mooy li nga xam ne yaa ngi koy gis di teg sa bët. Hmm. mais tey tey jii nii yow yow sax say tu la posé woon question ne la lan moo changé Mbacke bi nga xamee Mbacke ba léegi. Hmm. lan nga may wax. non c'est pas ba fii man maay posé question yi non du question yooyu ay posé question ci débat lañ nekk. waaw ci débat lañ nekk mais man xëy na xëy bi ma nekk du ma may ma naan lii Mbàkke lii wala la bon yow yaa war a leeral <laughs> askan bi ci li nga ci mën sa kéemte lay kàttan. soo nee ma soo nee ma yow yaay leeral askan wi. Mhm. man daf may daf may jaaxal. parce que yow ci askan wi may leeral yow ci nga. mais position bi ma nekk en tant que journaliste du man maay dressé Mbàkke bilan naan lii nangam nangam xëy na yow. mais journaliste moom c'est pas na cap bi mu yore maanaam fi mu nekk. Mhm. Euh, bon yow tey

bi ñu avancer très rapidement loolu moom dañ koy bàyyi population bi ñoom ñooy ñoom ñooy voté ñoom ñooy gis xëy na yeneen yi donc ñu ñëw ñu ngi ciy jeexantalu waxtaan bi. Mm-hmm. solution yi lañu nga jàpp ne tey jii daal bu ñu ko defoon xëy na Mbàkke dina bokk ci ñi nga xam ne mooy dëkk yi gën. Euh, xam nga d'abord Mbàkke nit ñi dañ ko jàppee village jamono ji. Mm-hmm. parce que tey jii boo demoon hôtel communautaire yi léegi boo demee ci point yi gën a reculé ci Sénégal soo demee da fay fekk maire yu yu baax. de dernière génération mais man parfois xanaa moo ni meeru Mbàkke parfois dama naan bu ñu ko couleuroon couleur bu rouge sapeur pompier rek la lay jox. daa nuroog moom. mais moom la jël sax. xam nga xam nga moo tax ma ne la Mbàkke li fa xam nga suñ naan la li fa. <laughs> voilà mais ñëw ci solution yi ñu te nga bàyyi attaqué. <laughs> nga ñëw ci solution ma de. ok waaw solution yi. waaw solution yi moom. comme hmm. li ñu évoqué woon ci début bi rek. Hmm. yaakaar naa. ñu duggaat ci koñ yi. Hmm. defar euh, làmp yi ñu leer parce que hmm. ñu ngi wax problème d'insécurité. Hmm. te yaakaar na bu làmp yëpp tàkkee xëy na mun na wàññi loolu. tey aussi ñu dimbali ñu ngir yàlla rek suñu oto mbalit bi fu mu munti nekk. ñu indil ñu ko. parce que yittewoo nañ ko trop euh, tali yi. aussi ñu ciy def li nga xam ne moo ci war. stade bi aussi. ñu dimbali ñu parce que jeunesse su Mbacké aussi soxla nañ trop seen stade. mais tamit am na yeneen yoo xam ne ay construction la xëy na loolu aussi du ressortu maire bi. Hmm. tamit loolu mënuñ ci dugg daal. Hmm. loolu moom mënuñ ci dugg. voilà voilà mu nekk lu am solo xëy na <laughs> waxtu bi dafa mel ni waxtu bi ñu mayoon jeex na pour que ñu tàggoo mu bàyyi la rek nga tàggoo ñi lay seetaan ci 24 actu waaw euh, maa ngi sant ñëpp. Hmm. di gërëm ñëpp di nuyuwaat sama président Aboubacar Camara bu baax a baax a baax. ay jéngoo fipp yéen seen seen cest à seen slogan yi moom des fois day xaw a tiitalaate ay jéngoo ki fipp. Ah, mais ñun hmm. ci jéngu lañ toll nag. Mhm. Sénégal fi mu toll nii nii nii. Mhm. non Sénégal dafa toll ci jéngu de. <laughs> voilà am naa dinañ am temps beneen yoon pour détailler ko incha allah rabbi nga tàggoo. amul benn problème non mhm. maa ngi lay sant. di la gërëm parce que aussi émission bi am na solo trop. parce que permettre nañu aussi ñu détailler yenn yi. Euh, di leen ñaanal aussi que li ngeen di séntu ci seen euh, chaîne bi. xam nga suñu borom defal leen ko. amiin nekk ay télé télé télé télé. amiin waaw yàlla na leen yàlla jàppal rek taxawu leen. voilà. merci beaucoup ñu ngi lay sant bu baax euh, Mouhamed Kane ah. ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci disponibilité bi vraiment oyof gi nga am ngir wuyu ci jotaay bi ma fàttali ne moom moo nekk coordonnateur départemental bu euh, partie bi nga xam ne moom la ñuy wax Jéngu euh, ah. ñu ngi koy bu Boubacar Camara ñu ngi koy sant baax di ko gërëm sant Cheikh naa mi nekkoon ci caméra bi sëñ bi kan ñu ngi koy sant baax di ko gërëm Mame Fatou Kébé ak soxna Assou Sylla soxna Khady mooy monté jotaay bi ba mu jaar yoon dig daje incha allah beneen yoon.